Euh, salam salaamaaleykum wa salam salaamaaleykum chers téléspectateurs salaamaaleykum les amateurs de la diaspora salaamaaleykum euh, ahlul lamb Sénégal yëpp di nuyu le monde de la lutte en entier les amateurs les promoteurs les lutteurs en activité les anciens lutteurs ñëpp di nuyu ñëpp di ziar ñëpp jox ñëpp seen wàccuwaay di nuyu aussi euh, kilifa diine kilifa aada yi ñu ngi leen di nuyu émission seen émission 20e numéro avec Ndiack Albert aujourd'hui c'est le lundi. 26 euh, février 2024 nous hein. lundi 26 février 2024 ah, euh, ñu ngi fii ci HLM euh, seen émission 20e numéro dimanche c'était le 25 février 2024 25 février 2024 nous avons amoon une gala spéciale spécial aux arènes nationales ak ben terrain galbi arène nationale Ben 5 millions moo ko amoon mise 5 millions wa sen ñoo ko Euh, au finish ki ñuy wax euh, moo defee ordinateur moo ko mujjoon jël ci Paul Mant poids léger yi monument bu Ndiana moo ko jël Ragadu euh, yi Yaamo bu Dakar jël ko mais seulement émission Joktor li ko tax a jóg demuñu arène national mais d' après bi nga xamante ne gis nañu ko gis nañu foofu franchement ay combat yoo xam ne am na litige diggante Modou Faye ordinateur ak général bu manika ben gaa recours amul mais ñi satan vidéo bi ñëpp gis nañu moo Faye ordinateur teg

ben bi terrain grand grand la woon mooy weekend bale passé mon demoon final euh, contre Ada Boy Bawol Ada Boy Bawol daan ko tey démb encore mu ñëwaat ñëw final contre Papa Ngane Papa ko donc kon chapeau à euh, Bébé Ouz bu signé te xale boo xamante ku ñu wara a xel la parce que franchement il est petit par la taille mais grande par l'expérience waaw taille bi tuuti na boo xoolee da nga yaakaar ki mais franchement amul doole mais c'est un peu maigre euh, bu bëree nga contane bu fekkee aussi nga bëgg euh rawgadu bi poids léger bi du moins Seni Boubarni jël ko jël ko ci Olympique bu Mbingana Olympique kan eh, bu Mbingana aussi c'est sa première sortie c'est à Dakar bu muy bëre ba tey tey démb moo nekkoon premier sortie ma Dakar premier sortie premier final eh, franchement loolu liggéey moo koy maye parce que jël ramb Dakar voilà sinon nga soog a Dakar dem final c'est eh, pas facile de parce que université lamb fii la ci Dakar rawgatu bi nag ki ñuy wax fils de Mbaye moo ko jël jël ko ci Pape Ngom Pape Ngom aussi bokkul bokk ci révélation parce que premier sortie ici aux arènes Adrien Senghor moo ko jël première ouverture saison premier lamb bi am Dakar moom moo ko donc franchement xale bu ñu war a bàyyi xel la moom itam petite par la taille la mais expérience am foo ko natt ëpp na ko euh, ñu rek franchement aussi euh, terrain gaal gi euh, lamb ci neex na animation ba mayang bu lum la woon ak borom gauche magique bi mooy Maodo Faye franchement lamb ji neex animation bi neex na tëgg bi neex na bëri bi neex na gars yi ñëw nañu wane fi seen bopp na fa may bu fecc-fecc yu neex jeex taxawul Mbayang aussi woy fa gaañ franchement Mbaye Kalom woy fa euh, ndam si yàlla euh, Lamine Salibu jam ñaajo di ko ndeysaan jaale au passage di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xaaru ko aljanna ñu gën a kawe et franchement c' était un grand monument la nekk def na ko ci làmb et franchement ba yàlla ko fi ñu koy ñaanal yàlla na suuf oyof ci kawam yàlla na suuf jam ñaaj oyof ci kawam yàlla na ko yàlla jégal te xaaru ko aljanna ñu gën a ak ñu fekk yëpp ñu koy fekk après aussi

Euh, date bobu nek date bu vacant CNG war na ko mën pour sauver pour sauver date bi pour aussi amateur yi aussi dañ am nostalgie wu lamb mais budul lolu man mësuma gis CNG tëgg te sekk promoteur donc li bu amé je ne sais pas exactement xam nga coïncidence lañ ko meuna woy ou bien euh, maté lay don mais man dama jàpp ne peut-être xeyna amna mais dootul am parce que que euh, c'est la première fois muy am rek lu waratul nek lo xam ne dafa répété parce que CNG nak quoi qu'on puisse dire il n'est pas là pour concurrence avec les promoteurs parce que moom la ñuy dénk lamb ji

xamna naa num lu mu tuuti war na mot quatre ou trois quatre kilomètres wala 5 km donc kon lolu mo gëna sori fouf diggante Grand yof ak terrain gal yi maintenant man nag sas bi yëpp dama ko tek ci kaw promoteur les promoteurs de la lutte simple li dafa nek leçon ci ñom ñom nak bu ñu bàyyiwul di correspondre ay date CNG bu tëgaatee sen kaw bu tëgaatee benen promoteur te CNG di tëg kenn warul wax man je le dis au effort li dafa war nek leçon ci ñom ñom ñëpp nak toutes les acteurs de la lutte ñu ngi wax le simple ñu ngi wax di casse CNG waru dal ci kaw kenn d'accord man ànd naa foofu ak ñoom CNG waru dal ci kaw kenn mais ñoom itam nañu fexe seen biir toog waxtaan ba nga xamante ne ñoom dootuñu daje seen biir les les promoteurs de lutte simple nañu fexe waxtaan ba dootuñu daje seen biir. voilà sinon bu CNG defaatee lu mel noonu amul kenn du am droit wax parce que mbir boo koy bañ na fekk yow nga jiitu ci ba pare voilà boo koy bañ na fekk yow nga jiitu ci ba pare les promoteurs de lutte simple nañ toog autour d'une table toog waxtaan ba nga xamante ne Grand Yoff dootul tëgg terrain Gaal gi di tëgg. développement du laaj tam bu ñu ko waxee nag c'est le développement du laaj nit nag ñoom bëri dafa war a développé dañoo egg aussi di développé développé d'accord mais nag concurrence am na ci lu bëri ni mu mais baaxul ci làmb jii nii parce que tey euh, Sénégal nga bi te grandi rek baax na ci euh, baax na ci mbër yi mais franchement baaxul ci amateur yi ci baaxul aussi ci promoteur bi

li xew dem dootul am promoteur nag am na nag ñoo xam ne ñu ngi doon dox pour ñaari gala yi entre Grand ak Sénégal bi dootul am mais ñooñu ñooñu gën a defaat concertation nañu gën a wootuwaat rassemblement comme niñ ko defee keroog ci bu mbay kalam bi ak CNG lañu defaat bu mel noonu woo tous les promoteurs de la lutte simple toog ak ñoom autour d'une table waxtaan ak ñoom ne lii gis ngeen li nga xamante ne moo amoon le 25 février bi passé 2024 diggante CNG ak mbay kalam li nekk ñu koy wax donc bëggatuñu loolu répété wu dal ci yéen ñi nga xamante ne yéen promoteurs yi

99 je dis 99 des promoteurs de lutte simple tous presque ce sont des Sérères lan motax tax mënuñoo man ko seen biir lan motax tax mënuñoo jiboo lan motax tax mënuñoo nekk benn lan motax tax mënuñoo def ben bloc hein bo xol association des promoteurs de l'ensemble simple sax mën naa wax ne presque doxul ça marche à pas de caméléon ça marche à pas de caméléon parce que man ci acteur ci je suis un acteur de la lutte en, part entière. Même vous, vous gagnez des moi je suis un amateur de l'ensemble simple. Et j'ai fait partie aussi de l'association des amateurs de l'ensemble simple du Sénégal, dirigée par Doudou Faye. Depuis 2006 jusqu'à présent, je suis adhéré. Donc, je suis je suis un amateur à part entière. Amateur dafa am nak supporter am. Demb bo xolé mën na wax né presque amateur dañu amone difficulté, a amone problème. Parce que mise 5 millions en général, amateur, vrai amateur du ko gis, 7 du 17 ans 3 millions.

ñoom ñëpp kenn moom gaa am na ñu fa ñu nekkoon fa adré kii euh, arène arène nationale mais dañ leen koy nangul dañ leen koy nangul parce que dara aussi bu xewee bul ne man li ma def laa ñëpp war a def déedéet déedéet waaw ku nekk da ngay xool li ngeen arrangé parce que milieu lamb presque mën naa xam ne c'est milieu intérêt ku nekk da ngay xool li nga xamante moom la arrangé nga def ko dem ñi nga xamante ne dem arène nationale moo leen arrangé dañoo dem seetaani mais kenn kenn mënu leen blâmer mbër yi nga xamante aussi dem arène nationale moo leen moo leen moo leen arrangé parce que mise bi foofu la ëppee dañ fa dem kenn du leen blâmer

dafa ñëw pour dafa war a ñëw pour doxal lamb ji pour dundal lamb ji mais franchement bu ñëwee pour dundee lamb ji moom beneen affaire lay doon te euh, démembrement de l'État la ben euh, ministre des sports moo fi teg ki fi nekk donc franchement dañu war a dañoo war a dox ci bëgg-bëgg nit ñi. waaw franchement maa ngi jégalu ci kàddu yi nag bu fa amee loo xamante ne xaw naa xaw naa gàllankoor si maa ngi jégalu bu baax ñëw tuuti ci annonce lamb euh, Nous avons fait protection mooy de 2-3 mars à Diras, il rend hommage à Fodja Djilas avec une mise de 1 500 en deux catégories euh, Mbayang moo fay nekk ak euh, Maodo 3 la 3 du 29 au 2 mars avec une mise totale de 6 ba plus 175 000 francs parrain poids lourd chef de village bi la mu bourgogne Bour léger Diab avec sa famille moom lañ parrainé rawgadu bi ñu parrainé ko ASC ay sa jawul bu keur Bakary poussière ba ñu paré nako les vieux du village moy mag mag bi nek mag yi nek ci dëkk ba euh, animation ba Matar Sen la Matar Sen lay doon ak Ndefatou Adama Ndiaye Bellu Nguithie Bellu aussi c'est du 6 au 9 mars 2024 avec une mise totale de 10 bœufs plus 120 000 francs mise totale de 10 bœufs la ak 120 000 francs donc Bellu Nguithie na jour langue noté len ko fukki nak du ah. mais 4 catégories lay aussi ah. euh Nguindine Mbinba ngi ci aussi c'est du 28 au 2 mars avec une mise totale de 770 000 francs euh, avec écran plan Awa Ndiaye Palo. Euh, les anciens couloirs et les lutteurs en activité de la région de Fatik organisent euh, le 10 mars 2024 avec une mise totale de 1 million de francs CFA pour Mofanek moo fay ak Babou Ndaw Babou Ndaw gagné de camp Bari production Bari production de encore le 10 mars lii euh, 3 troisième journée bu Bari Production cette saison 10 hein, mars euh, au terrain Galga avec une mise de 2500. millions 500 fay ak Palo di décorer le champion Boubou Diom champion de Mbam mais Boubou Diom mi nga xamante ne def na lu nekk la Bari Production di décorer donc atia Boubou Diom la série avec euh, ñoom seen yooyu. atia émission de la woon avec Ndiaye Albé les internautes qui sont abonné ah. mais nous avons xamante ne abonné ñi abonné ba aimé partager cette vidéo surtout partage bi lañu gëna a soxla ñi abonné gul lañu abonné wa ñi abonné ñi nga xamantani ne ñu vous seetaan Mbine TV nañu abonné té buñu abonné ba aussi franchement nañu aimer di like di partager émission docteur avec Albert ci 20e numéro inshallah.